walaay ndeysaan noomee Cristiano Ronaldo yàlla mënula woon seetaan noonu ak li nga def ci football mondial lépp nga ñëw war a te penalty jooy jooy yu métti nar a toogloo Portugal noomee loolu warul woon mën a nekk waaye xanaa am déet noomee Diego Costa quel gardien de but qui il a joué pour Cristiano Ronaldo liyee ànd bu dëggu jàppale sa coéquipier salaam gars yi bégg naa leen nuyu ko ci nekk seen tur seen sant buñ ne football dafa neex li ni mel a tax genre circonstances yu mel nii genre situation yu mel nii ay retournement de situation nga jaaxle ba foog ne ne yow sa àdduna yàqu na ci laps de temps nga tourné sa àdduna neexaat ci saa si non mais incroyable Cristiano Ronaldo raté penalty ndeysaan boo xam ne dugal gañe la woon mu joojoo yi metti te presque am na 40 ans bu ne woon bu ko neexoon ne ah man daal gañaa li may gañe ret naa penalty bi jox naa Portugal euro jël naa trophée may jël amul problème mais jooy na fa yoo xam ne nii jéego kostaane ko nag tuural say say rongoñ feral ko man maa la indil mbégte jooyu mbégte yooyu maa la ko indil sur le coup ba mu waaye yow sis koo it raté loo xam ne nii ndeysaan foofu danga nga naan xaas ray gardien bi mu jaar na le nga jaar na le passe yi mais duñ naan booy daanu moom cuune ngay doon bu yàlla waroon jox Cristiano Ronaldo ndam noonu rek lay mën a demee en tout cas un match la boo xam ne un match fou Portugal li ngay football nii dalul xel li ngay football nii est-ce que gagné na équipe de France ah ñu ngi xaar la suite Portugal France match bu nar a neex nar a yëngu met tegu ci temps mais il faut ñu changer euh, ci attaque bi dafa des. finition bi moo des carrément Cristiano Ronaldo mënoon na génn à la quatre-vingtième minute wala à la soixante-dix-neuvième minute malgré dina mer mais pour intérêt équipe bi depuis le début laa ko doon wax mu ngi noonee la nekkoon ci tànk yi euh, mënu faa nekk boobu ba léegi ci quarante ans loolu mënul nekk am effort yooyu di daw ci yenn match bi fi mu toll physique bi ngay soxlaa dëgg dëgg dëgg moment yooyu du la ko mënoon jox kon à la quatre wala quatre-vingt-cinquième minute mënoon nañ ko génne noppal ko. dugal ay joueurs yu frais bàyyi woon sax Raphaël Leao mu indi bali looloo leen xawoon a sonal mais peut-être dañ ko doon bañ a génnee mu mer mu ngi noone mais Cristiano Ronaldo un joueur boo xam ne nii noo yàlla mënu ko woon seetaan noonu nag li def ci football mondial vraiment dama kontaan ci moom ba kookee di Diego Costa génnee penalty yooyu yëpp jàppale ko. mu mujjee ak gagné qualifié quart de finale lii nag mën na doon motivation boo xam ne nii mën na leen a booster li des ci compétition bi ñu doon ba doon bu doon wane benn wane fukk.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

am na ñu ma ko doon posé même question bi sauf que c'est intéressant nga posé ma ko yow. parce que tout le temps yaa ngi ciy yëngu. affaire yi dafa nekk à partir de treize dañ ko liggéey liggéey bu exceptionnel boo xam ne.